ñu dajale fii mooy ñëw waxtaan waxtaan bi dañ doon maanaam lancé officiellement suñu projet bu nga xam ne ñu ngi ko tuddal waajal élection présidentielle ci jàmm projet boo xam ne dañu am ay partenaires yu ñu ci jàppale muy ambassade Canada ak surtout ñu programme des Nations Unies euh, pour le développement mooy PNUD parce que PRUD dañu am benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee euh, cohésion sociale et prévention des conflits ci biir programme boobu nag ñoom ñu financé suñu ay projet ñun ay partenaires am ñun GRADEC ak euh, ëttu ëttu jàmm euh, plateforme des femmes ëttu jàmm seen président mi woon fii ak ku ci mel ni WANEP aussi yu représenté wu ak benn organisation pour dugg déclic bu nekk Casamance donc ñun dañuy liggéey vraiment pour fexe ba élection yi ñu dem ci ci jàmm ak ak dal parce que dañu gis ne depuis ñaari at li fi am par exemple ci ay violence gis nga sànq documentaire bi ñu projeté vraiment ak yàqu-yàqu yi mu indi ci réew mi ak ñu violence ak fitna li muy indi ci yàqu-yàqu ci réew loolu moo tax ñu ne il faut que ñu gàttandu mbir mi ñu jéem a vraiment teg projet bu mel nii nga xam ne dañuy def une campagne de communication ci réseaux sociaux pour ñaax ndaw yi ak jigéen ñi pour que kenn bañ leen a utiliser ci wàllu donc violence parce que violence dafay tas am réew loolu donc benn aspect la bi ci des également comme ni ma ko waxee am na ay moniteurs yoo xam ne danañ leen tànn ñu former leen ñu yónnee leen ci yenn gox yi nga xam ne jàpp nañ ne mooy gox yi nga xam ne ci cartographie bi ñu def moo gën a mën am ay pour ay violence am fa parce que doo xaar ba maanaam euh, taal bi takk ngay door a di fay donc dañuy fexe nu ñuy def pour ñu gàttaru pour que bu bu bu ñu gisee ne taal mi ngi bëgg tàkk rek ñu ñëw fay ko loolu moom moo vraiment donc wund pro euh, projet donc waajal élection fexe daal ba euh, jàmm ak salaam am ci réew